képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteeg sëriñ bi nag doxul ci caaxaan soo ko bëggee takk soxna la wax dina la ko noobal ba ngeen juboo seen wërsëg dëppoo waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu faj rawatina tawat yi nga xam ne ñoo sonnal askan wi bu ci mel ni imorid ndoxum siti ba ci néew kattan ci sunu mbokku góor yi waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu këyit moo xam nga nekk ci réew mi di lijjanti ay kayit mu jafelal lool soo ko woowee incha allahu na caa def saafara rawatina sunu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ca bitim réew am fa ay jafe-jafe ci wàllu kayit képp ku ko woo rek bu leen yàlla dëppalee incha allah di nga am saafara ci sa tawat boobee sëriñ bi nag ku bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi nii may waaj a lim muy 77 541 08 85 ma baamtu ko 77 541 08 85 beneen bi di 78. 451 74 40 numéro yooyee la ñu mën a jotee Serigne Kamal nekk sëriñu Lasrar bu yàlla baaxal képp jokkook jokkoog moom yàlla na sa aajo faju laata ñuy door revue de presse bi nag ñu fàttali leen tey jii dimanche la journalu Sénégal yi benn ñëwut waaye fii ci réew mi Ligue 1 bu Sénégal démb la ñu door fukk ak juróomeelu bëccëg bi maanaam quinzième journée bi am na match yu amoon match yooyee bokk na ci Tëngéej football club doon na dalal US Ouakam am ndam ci kawam ñaari bal ci benn Jaraaf doon dalal Dakar Sacré kër ñu témboo ndam demul ndam dikkul 0-0 la match boobee jeexee tey ji bu quatre heures et demi jotee ñoo ngi xaar match yu nar a neex match yooyu yëpp nag même heure la Sonacos war na dalal jàmbaar US Gorée war a dalal Génération Foot AS Pikine war a dalal La Linguère bu Saint-Louis stade de Mbour war a dalal jamono bu Fatick Casa Sport war a dalal Guédiawaye football club match yooyee nag mi ngi soxal Ligue 1 bu Sénégal yëpp quatre heures et demi lay door kon gaañe xaar leen ko. ñu door revue de presse bi dooree ko France fekk fa l'équipe bu Marseille. Marseille la journal bi fësal ca xët olympique bu Marseille ànd ak doomu Sénégal ya fa nekk Iliman Ndiaye Ismaïla sar ba ca Pape Alassane Gueye ñoo fekki woon Clermont bu ñoom muri jaw duma leen duma yu miti juróomi bal ci benn moo tax journal bi ne yaa de la soir mbégte mu rëy am na ca olympique bu Marseille ànd ak Jean-Louis Gasset mi leen di tàggat ñetti match yu tegaloo la fa amal am ca ñetti ndam jamono ji nag seen nañu ko ca Ligue 1 bu ndax ñoo ñoo nga ca juróom benneelu place ba match boobee nag doomu Sénégal yi doxal nañu ca ku ci mel ni ilimaan Ndiaye ak Ismaïla sar ñoom ñaar ñëpp dañoo départ titulaire bu dee ilimaan Ndiaye moom bit ba njëkk am ca match ba moo ko dugal bu dee Ismaïla Sarr moom dugalut waaye amal na passe décisive ñu am ndam lu ama am solo ànd ca ak ki leen di tàggat di Jean-Louis Gasset ñoom waa Olympique bu Marseille jamono ji nag deferaat nañu seen toogaay ñoo nga ca juróom benneelu l'équipe 2 moom Kylian Mbappé ak Luis Enrique le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa divorce à l'espagnol doomu Espagne bi ak Kylian Mbappé de teqalikoo nañ daanaka te dootuñu gaaw a juboo li ko waral moo di kat Kylian Mbappé mi ndogal li Luis Enrique jël moo di wàññi temps de jeu bi nga xam ne mi ngi koy am ak clubam di Paris ndax kan ñëpp jàpp nañu ne Kylian Mbappé day jugee ca Paris googee moo tax li palangu Paris mu génne ci Kylian Mbappé nànk-nànk waxoon na ko fi ne Paris dinañu wàññi li Kylian Mbappé di football ci club bi loole li koy firndeel moo di bi ñuy jàkkaarloo ñoom ak AS Monaco bu yàggut dañoo miitaan rek ñu génne ko ginnaaw suba nag dañuy jàkkaarloo ak Real Sociedad match boobee mën naa am Kylian Mbappé du ca football lu bëri maanaam ay minutes yu ndaw la cay football jamono ji seen diggante rattaxul dara moom Luis Enrique li mu bëgg moo di waa Paris a fàtte Kylian Mbappé ndax saison bii di ñëw wóoru gut mu football ca club boobee moo tax day wàññi temps de jeu wam moo tax journal bi ne ñoom ñaar seen diggante dafa ñagas lool te daanaka divorce la maanaam daanaka téqalikoo nañu ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport derby Manchester bi war a am tey jii le journal bi fësal ca wu njëkk wa Manchester City mooy dalal Manchester United match boobee nag kii ñaax ay ndawam du kenn ku dul ten Hag mi tàggan Manchester Manchester United moom mooy ñaax ay goneem tey ji ngir ñu fekki Manchester gañe ko loolee la bëgg te xamal na ko gone yi nee na leen jëmbat leen fu la ñu am ndam ndax kat bu yàggu dara Pep Guardiola daf fi waxoon ay kaddu Pep Guardiola li mu waxoon moo di amul wujju foofe ca Manchester Angleterre gépp sax su fekkee am na fa wujju wujjam du kenn ku dul Liverpool waaye ñeneen ñi fi des ñëpp ay naba lañu moo leen mën wax jooju nag Erik ten dafa bëgg tey ji Pep Guardiola réccu ko te lii tax mu réccu ko ay gonem ñoo ko war a wane ca terrain ba doxal am ndam ngir xamal Pep Guardiola ne ko dafa juum ñun ay wujju yu mag lañu ci Manchester City loolee la Eric Ten Hag xamle journal bi tamit ñëw na ci waa Liverpool Liverpool démb dañoo am ndam lu ama am solo te cete lool Nottingham Forest lañ doon jàkkaar lool football nañu ba match bi di waaj a jeex ci la Darwin Nunes dugal ab mbëkk waaye bit boobee nag bi mu duggee coow li nee na kur ndax waa Nottingham Forest yëpp dañoo daw songu arbitre bi ne ko heure bi jeex na bu yàgg tasoo match bi défaite bi ñu am yaa ñu ko teg loole la journal bii di Star Sport xamle. ñu jugee Londres Angleterre wëtali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Real de Madrid ak mën Manzano mi doon arbitré démb match bi doon dox ci diggante Valence ak Real de Madrid la journal bi. di fësal ca xët wu njëkk wa scandale mbir mu rëy te doy waar moo am démb ca Mestalla Real de Madrid moo fekki woon Valence Valence ko mëne woon ñaari bal ci dara waaye gone Carlo Ancelotti yi fipp nañu ba égaliser waaye ba ñu demee ba ci cëppaandaw ga nag ci la arbitre bi amal mbir mu ñaaw lool loole nag du samay kaddu kaddu journal bi la ndax waa Real de Madrid dañoo am corner ñu centré ko maanaam ñu dóor corner bi bal bi nekk en l'air maanaam nekk ci kaw bi muy waaja a wàcc ci la arbitre bi tas match bi nee fi mu tasee match bi noonee baaxul loolee tax na nag waa Real de Madrid dañoo mer ba futu ca jamono joojee nag ci la ñu am ñetteelu bit bi waaye ñetteelu bit boobee kontewul kon match nul la ñu am démb loolu naqari na lool waa Real de Madrid match bi nag bi mu jeexee Hugo Duro wax na moom attaquant di football ca Valence nee na moom comprendre na bu baax waa Real de Madrid ndax kat li leen daal dafa mitti lool fi ñu tasee match bi baaxul loolee la Hugo Duro jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it waa Real de Madrid la fësal ca xët wu njëkk wa scandale de championnat championnat bu Espagne ñu naan ko Liga lu doy waar moo fa am démbo ki ko waral nag du kenn ku dul Gil-Manzano mi doon arbitré démbo match bi doon dox ci diggante Valence ak Real de Madrid lu mosul am ci football moo am démb ci Liga bi loolee nag du samay kaddu kaddu journal bii di AS yéenekaay la ndax arbitre bi fi mu tasee match bi baaxul Bellingham dugal na ñetteelu bit ca jamono joojee ci la ko tas gaañi kaas moom Bellingham mi dugal bit boobee ñu bañ ko ñu jox ko carton rouge waaye bi match bi jeexee karlo Ancelotti wax na nee na man de ba ma juddoo ak tey jii lii mosuma koo gis ci football loolee la Carlo Ancelotti xamle match bi nag dañu ko door rek waa Valence di doxal mel ni gaynde dugal ñaari bit waa Real de Madrid waaye ci cëppaandaw ga nag Real de Madrid da koo jëli ba 2-2 ci fin bi maanaam ci njeexantelu match ba doy waar dafa am muy sure bi nga xam ne doomu Guinée Conakry bi am na ko di Moctar Diakha bi blessure bu mitti la am moom Moctar Diakha bi liga boobee nag dañu koy wéyal tey jii Atlético de Madrid tey lay jongante match bu mitti nag la am Betis Séville la ñuy jàkkaar lool Diego Simeone mi leen di tàggat nag li mu bëgg moo di boole Memphis Depay ca kaw ak Alvaro Morata ñu doxal ngir am ndam loole la journal bi xamle waaye bu ñu demee ba vingt heures jot Barcelone mooy fekki Athletic Bilbao Barcelone loolu nag tey jii match bu mitti la am ndax Athletic Bilbao jamono ji kenn mënut leen a téye waaye ci liga bi nag Barcelone cundum mooy club bi nga xam ne amagul défaite à l'extérieur maanaam demagul cib dëkku jàmbur am fa defet défaite yi mu jot a am ci liga bi ci stade la ko amee moom Barcelone mosul am défaite à l'extérieur ci liga tey jii nag Athletic ba lay fekki match boobe vingt heures lay door. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Vinicius ak waa Real de Madrid le surnal bi fësal ca wu njëkk wo scandale lu doy waar moo am ci liga bi démb loolee la esport xamle Real de Madrid moo doon jàkkaarloo ak Valence ca Mestalla match boobee nag miti woon na lool Valence moo mëne woon ñaari bal ci dara Real de Madrid jëli ko ba match bi def 2-2 ci cëppaandaw ga nag Real de Madrid dugal. dugal na ab bit Bellingham moo ko dugal waaye ca jamono joojee ci la arbitre bi tasee match bi mu nekk mbir mu rëy lool nekk scandale loolee la surnal bii di esport xamle Vinicius nag kenn du moom ca match boobee doxal na dafa amal ab doublé waaye bi mu dugalee deuxième bit bi nag dafa provoqué supporteru Valence yi tribune bi foo tollu di dégg coow li coow li ni kuru ci stade bi bu dee Bellingham moom dafa am carton rouge ca match boobee bi mu la doon kaas ci la ko arbitre bi joxe carton rouge journal bi nag mi ngi ñaax waa Barcelone neleen leen tey am ngeen opportunité bu mag maanaam am ngeen wërsëg bu yaatu su fekkee Barcelone am na ndam tey jii ci kaw Athletic Bilbao juróom benni poñ képp mooy dox ci digganteem ak Real de Madrid li ñu bëgg nag moo di ànd ak Xavi doxal am ndam loolee la surnal bii di xam le ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it liga bi la fësal ca xët njëkk wa rawatina match bi doon am démb la liga ouvert liga bi de ubbeeku na léegi li ko waral moo di match nul bi nga xam ne Real de Madrid am na ko démb ca Mestalla tey jii nag la Girona di football ak Barcelone bu 17 de mi jotee Girona Mallorca lay jàkkaarlool su fekkee am na ndam ca match boobee ñeenti poñ képp mooy dox ci digganteem ak Real de Madrid Barcelone nag bu 20h jotee la ñuy football ñoom Athletic Bilbao la ñuy fekki bu ñu amee ndam ca match boobee ñoom tamit juróom benni poñ képp mooy dox seen diggante ak Real de Madrid kon liga bi ubbeeku na démb nag Vinicius doxal na ndax dafa doublé takkale bam di Real de Madrid am match nul ca Mestalla waaye surnal bi nee na arbitre bi di Xilmanzano fi mu tasee match bi baaxul ndax loolee day yàq football bi Mundo Deportivo nag moo xamle kàddu yooyu waaye journal bi nag nee na waa Barcelone am nañu wërsëg bu yaatu tey jii su fekkee am nañu ndam rek dinañu gën a am yaakaar ci liga bi ndax bu boobaa juróom benn poñ képp mooy dox seen diggante ak Real de Madrid. ñu jugee Espagne wëtali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello por moom match bi doon dox bërki démb ci diggante AC Milan ak Lazio la jiital ca xët wu njëkk wa rawatina arbitre bi ko doon arbitré tudd di bello moom nag añ nañu ko weer woo xam ne du dugg ci terrain ngir arbitrer ab match li ko waral moo di match boobee moom doomu itali bi daf ca amal ay njuumte yu bari moo tax ñi ëmb footballub itali jël ndogal aj ko weer woo xam ne du dugg ci terrain di arbitrer benn match waaye foofee ca Italie tey jii ñoo ngi fay xaar match bu nar a neex bu 19h45 jotee la match boobee di door Juve mooy fekki Napoli ca stade de Maradona jamono ji nag ñaari club yooyee seeni attaquant ñoo ngi doxal bu dee waa Napoli Victor Osimhen di doomu Nigeria kenn mënu koo téye jamono jii ndax ñetti match yi mu mujj jongante ak Napoli dugal na ca juróomi bit bu dee Vlahovic moom kenn du moom jamono jii ndax moom juróom-ñaari match yi mu mujj jongante ak Juve maanaam sept match yi mu mujj football am na ca neuf bit tey jii nag ñu def rénkum jàkkaarloo bu 19h45 jotee journal bi tamit ñëw na ci waa AS Roma bu De Rossi jamono jii nag kenn mënut leen a téye démbu Monza lañ doon jàkkaarlool gagné ko ñeenti bal ci benn jamono ji ci Serie A ba ñoo jël cinquième waaye De Rossi kenn du moom ba mu fa ñëwee ak tey jii mi ngi doxal jongante na fa juróom-ñaari maanaam sept match six victoire la ca am maanaam juróom benn victoire kon kenn du moom foofee ca AS muy De Rossi dafa tëggaat club boobee indiwaat fa yeneen xarkanam ñu juge Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa Inter le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Inter googee nag li ñu bëgg moo di seeni punkal ñu téye leen yokku seeni contrat ngir ñu toog ca club boobee doxal bind fa taarix ponkal yooyee bokk na ci Lautaro Martinez Nicolo Barella akan Cancelo ba ci ki leen di tàggat di Inzaghi li ñu bëgg moo di blende leen ngir ñu bind taarix ca club boobee ndax jamono jii ñoo ngi doxal loolee la surnal bi xamle foofee ca Italie nag arbitre yi jamono jii dañuy amal ay njuumte yu bëri démb match bi doon dox ci diggante Torino ak Fiorentina